asalaamaaleykum mbokki internet yi maa ñëwaat dootuma leen ko présenté seen émission ambiance koor gi maa ngi nuyu ñëpp di baalu ak ñëpp di baal ak ñëpp ñu di ci lal hôpital yàlla fëgg seen bopp ñi nga xamante ne aussi dañu caabi di leen a féete ginnaaw yàlla ubbil leen ba ñu demaat seeni njaboot ak képp koo xamante ne ci weeru koor da nga sonn yàlla dimbali la te dama dalal euh, ndaanaan ki naan ndaanaan ci ma ñëw muy euh, Dado Dado Touré ñëpp gën ko xam nag euh, ci wàllum euh, écrivain daado maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax. asalaamaaleykum waa àdduna asalaamaaleykum waa Tiwaawan maa ngi leen di nuy di leen jaajëfal bu baax a baax di rafet lu émission bi di nuyu waa Tivactu di waa mm-hmm, actu mm-hmm. di leen di rafetlu émission bi bu baax a baax avec sama sister Amina di rafetlu teewaay bi macha allah. merci beaucoup di jaajëfal bu baax a baax ci dalal bi ñu dalal mais daaw tey dañoo ñëwoon daado euh, dañoo ñëwoon tey wax la yow nan ngay seet si la ba sa biir kër euh, di la wax aussi nan ngay dundee weeru koor gi. waaw man moom weeru koor bi dama koy dund dund boo xamante ne c'est assez spécial. parce que mm-hmm. ñëpp xam nañ ni man master 2 laa nekk damay mm-hmm. bind mémoire mm-hmm. donc. suma yewoo yeewoo jox yàlla lu mu moom comme julli après mu tëju sama néeg sëgg sama machine di bind wala may liir man loolu mooy sama passe d'accord ñu gis ni Daro euh, day day soutenir mémoire am aussi day bind na livre boo xamante ne mënoon indil ay leeral tuuti tuuti waaw man nag euh, si début 2000 euh, janvier bi passé 2023 bi si laa génnee sama benn roman ñuy wax mm-hmm. les liens moodi ba mu nekk sama livre bu njëkk ma génn ko mm-hmm. waa Tiwaawan jàppale ma si rafetlu rafetlu ko en tant que jeune écrivaine ma génne sama premier roman ñu jàppale ma si taxaw ma si donc livre bi ça parle de la violence faite aux femmes jigéen ñi nga xam ni dañ leen joxuñu leen seen gëdd di mm-hmm. livre bi mi ngi xeex ak yelleefu jigéen ak ndaw ñu gis ne aussi comme damay ñëw ci violence bi violence bi temps yi bàyyi na lool euh, violence faite aux femmes suñu gisee euh, bërki démb rek am na ko xamante ni muy Awa Ba dañ ko rey euh, taal ko léegi yow noonu nan nga gisee loolu à par rapport ak livre bi nga bindoon xanaa nit ñi dañ ko bàyyiwul xel. waaw xam nga ñun man littérature la def. Mm-hmm. ama beneen fonction bu dul bind. fonction de la littérature mooy que sa dëkk lu fi nekk. moo xam lu jege la wala lu sori la nga xeex ko à travers la plume nga bind nga véhiculer benn message man nag dama opté option boobu parce que man de nature bëgguma injustice mm-hmm. man moo tax loolu moom gën a poussé ma bind parce que man injustice bëgguma ko muy jigéen ñi muy ndaw ñi mm, fee bi ngay wax maa ngi koy ñaawlu bu baax a baax a baax di jaalee famille bi parce que neexul en tant que jigéen ngay jékki yéegi nga gis euh, ñu ni faat nañ ko ci anam bu doy waar mu ñu ba pare ñu taal ko mu nekk benn acte boo xamante ni kenn mënu ko qualifier parce que ki def jëf ju ñaaw boobu du nit parce que ku nga xool sa moroomu nit jullit rawatina sa moroomu nit nga tiim ko di ko en tant que jigéen nga xam ne amul force nga di ko def loolu loolu acte la boo xamante ni ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax a man boo ko gisee dafa ma metti hmm. mënuma woon a bind pour kii ko pour pour dénoncer wala wax ci sama xalaat parce que hmm. dafa nekk loo xamante ne ba léegi mënuma ko comprendre hmm. parce que comme viol mi ngi mel ni nga comme viol euh, nga tim tamit nit nga rey ko loolu la parce que nit ki boo ko violé cela veut dire que amatoo dindi nga ngoram di nekkoon ci moom dindi nga niteem nit li nekk li tax ñu naan nit dindi nga ko ci moom muy viol muy rey nit ki du mënt ki doon ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax. ñu gis ne uh, biñ koy faat tamit dafa ëmboon ëmb bu ñuy wax trois mois loolu tamit nan la la def ak biñ ko yëgee. waaw man au début dama jàppoot ni dañ ko rey daru jaru kiiwuloon pour man góor la woon bi may mm-hmm. bi may lire première information yi mais par la suite si laay gëstu ñu ni jigéen la après si laay seetaan vidéo yi ñu ni malheureusement elle était enceinte de trois mois. Mm-hmm. bi ma ko yëgee tamit même choc bi laa am parce que metti na xaw ma ba xam autorité yi ñi ngi def seeni ay enquête ba mi ngi am suivi mais maa ngi ci maa ngi ci profité di wax ñu gën a xuusal enquête bi parce que vraiment metti na nga nekk si dëkk bu mel ni Sénégal lii di fi am yàgg na di am mais pour man waroon nañ fee mën a taxaw teg ay jéego ba loolu dootul amaat donc lii mën naa am leçon la de plus pour autorité mën a taxawaat sàmmaat ak ak yelleefu jigéen gën leen a protéger de même que kon dañuy def foofu entre parenthèse di ñëw ni Daro euh, avant ngay nekk euh, avant ngay euh, doon écrivain yow lan moo doonoon sa option ak lan moo doonoon nekkoon sa xel ak Daro moom fan la jàngee waaw man maa ngi jàngee université Gaston Berger bon nga xam sama parcours man mm-hmm. fii laa Ndar laa juddoo mm-hmm. c'est vers 2002 si lañ tuxu si fii Tivaouane mm-hmm. ma defee sama euh, cursus scolaire euh, école élémentaire ci waawoon set kor école set après si lañ ma yóbbu lycée Ababacar CEM Ababacar Sy ma def am fa sama BFM après ñu yóbbu ma lycée Ababacar Sy ma am fa sama bac ci lañ ma orienté université Gaston Berger biñ may orienté dama bëggoon def droit hmm. parce que dama yàggoon suivre ay film di seetaan ay reportage ci avocat yi avocat yi di défendre les femmes parce que loolu laa bëggoon pour ma gënoon nekk xale parce que fu daan fu ma daan fekk fu ma daan gis ñuy toroxal jigéen wala ma dégg nit nettal ma histoire am diw def na ma lii damay bëgg kut ko kut régler ko ci saa si mm. donte aw ma moyen wala munu aw ma doole donc moyen bu taxoon mooy défendre l'injustice par la suite nag yàlla indi dogalam ma def anglais université Gaston Berger actuellement maa ngi master 2 ma def mm. littérature et civilisation du monde anglophone donc ci wàllum bind lañuy lañuy doon lañuy jàng di gëstu téere yi di liir lire mm. par la suite nag ci la ma amour boobu dugg parce que da ngay lire mm. ki ma gën a motivé nag si bind bi mooy Fatou Diom man damay liir ay livres yu bëri c'est une femme cultivée boo xam te ne dafay défendre le droit des femmes de l'humanité ba pare derrière ses écritures c'est cash Mohamed benn femme brave parce que li mu dund peut-être moom moo tax tey jii ba nit ñi di ko si am fu mu ko fu koy xoolee parce que elle n'est pas une femme euh, simple comme mm-hmm. je peux le dire a vécu des moments tristes des moments sombres mm-hmm. loolu moo tax ma ni pourquoi pas ma bind man tamit pour dénoncer li nga xam ni maa ngi koy gis nit ñi di ma ko wax te aw ma fu ma ko joytu ñoo gis ni da nga bind livre léegi livre boobu bi nga ko bindee euh, Tiwaawoon j'espère que gis nga ci woon sa bopp wala nan nga def bind livre bi ak fan nga loon bindee livre bi. waaw livre bi man tax daf ma bett parce que bi koy bind jëluma woon jëluma woon temps bi pour bind ko hmm. dañu toogoon université suñu chambre yi ne c'était un samedi je me rappelle sam vingt 24 février la woon. deux mille deux mille vingt ñu ngi toog ci chambre bi nii deux mille vingt et un du ngi toog ci chambre man jël sama machine comme dañ faral di dem ci yeneen chambre yi. entre mm. toog waxtaan. mais si laa jël sama machine dem ci beneen chambre toog nii ma calme ñu ama yow tey euh, danga calme mu waxoo daal ma ne damay bind livre ñu may reetaan. ñu mm-hmm. ma loolu loolu mënul nekk yow nan nga mën a nekkee fii naan dangay bind livre ma leen seetaan ma toog bind mat quinze euh, quinze pages. ma tëj sama marché ma ne livre bi bari na ñu may ree au début bon je ne comprenais pas comme livre yi ñaata page nga war a bind. pour mën a par la suite si la rencontré benn maison d'édition ñuy waxtaan mënuma da ngay yokkaat page yi en moins d'une semaine pare naa livre ma bind livre bi teg ko ñi am di modifié di modifier ba yàlla tay ñu dogal livre bi génn même si kii bi publication bi yombul woon mm-hmm. parce que am na dund naa ci trahison mm-hmm. dindi naa ci ay menaces dund naa ci tamit comme genre harcèlement pas mm-hmm. harcèlement comme chantage parce que da ngay ñëw jox nit sa livre corrigel ma mu lay wax yoo xamante ni sana ni que ni tet mais boo amee boo nekkee femme de valeur xam fi nga bëgg a yegg ba pare ngay am looy dénoncer nit ñëw di la bëgg a dugaloo si gàmm boobu loolu c' totalement c' est paradoxal ma xeex ñafe def ko loo xamante ni man maa ko bëgg kon mm. dama bëgg mu yegg bu fu mu bëgg yegg tey nag yàlla dogal ma réussir ko mu nekk loo xamante ni waa Tiwaawan rafetlu nañ ko xaaruñu ko woon ci mm. man parce que tout le temps lu ñu may gis may génn bariwul bu mm. ma fekk sama kër nga ma fekk wala nga gis ma si réseaux sociaux yi parfois may bind ñu koy apprécier loolu Euh, d'accord ñu gis ni chantage yi tamit bari na loolu moo tax xare jigéen ñu bari gëmatuñ seen bopp mhm. parce que da ngay def dara nekk ci dara nga bëgg cee am dara ñu lay chantage ak liggéey bu manti doon léegi yan leeral nga mën a indi ci loolu noonu ak jigéen ñi nga xamante ne ñoom tamit gëmuñu seen bopp waaw di leen wax ni nit àdduna loo mën loo mën loo mën a nekk ak loo mën ki def da ngay gëm sa bopp dara bum la xoqatal dara jaral sacrifier sax bokku ndax leneen ni da ngay diñ man pour man nit boo amee looy sentu walla mm-hmm. lan ngay bon ak ndimbalu suñu borom dem ci ba jeex lu lay du ko yàlla yàlla bu indee ak dogalam nga xam ni foofu la loxo suñu borom yam mais paa ngay def loo xamante ni dafay ñaaw sa sa der ci yàqu wala mm-hmm. te ëllëg nga tëdd di réccu naan su démb doon tey man nag yàlla dafa dogal man j'ai la tête sur les épaules man mhm. femme jigéen la boo xamante ni mhm. peut-être bu ma gën a nekk xale dama am occasion di génn di mhm. fowi di di di daanu di fakkasalu may gis parce que boo xoolee sama livre bi lu tax ma gën ko bind sama benn ami d'enfance moom moo dund viol ba malheureusement mu génn ñàkk si bakkanam ku ko violé nag c'est un charlatan daf ko doon gëmloo ni ko mën naa la ñaanal parce que élété était brillante jàngkat la woon xam nga société sénégalaise bi nu mu mel mm-hmm. mu dem yàlla dogal dogal fekk ko fi ba pare mu nekkoon ci famille boo xamante ni respecté wuñu ko woon mm-hmm. comme famille yi ngay gis ci kër yi rek ñi mm-hmm. defee am ay parparloo ñi ànd ak ñi seen yaay ñi di bébbi bi ñi di ànd am ñu ñu ànd moom nag malheureusement elle n'a pas eu la chance d'avoir une famille normale muy dund stress bu ba yàlla dogal mu mu décédé bi ñuy gisante parce que dañ daan par période vacances ni mango lañ daan gisante parce que mhm. seen papa dafa amoon tool mhm. te d'habitude dañ fa daan dem mooy si mango yi foog noonu mais bi ma ko mujjee woon a gis mm, euh, physique euh, apparence bu mu amoon ak ni ma ko daan fekkee yamul dafa changé mu jeex mhm. ma ñëw di def ay cauchemar tout le temps dama ko daan xalaat ba jour ma décidé man ah kii foog ma dem seeti ko je me rappelle maa yor ay sachet rempli de fruits def naa ko si livre bi si début bi propos di li ngay bind ak li ngay écrit ak toogaay bi nag ndax toogaay dafa metti aussi. waaw début bi mu xawoon na metti parce que pour nga miin ko ce serait un peu difficile ak tàngaay bi mais léegi moom macha allah ak climat bi man woor bu spécial laay def parce que comme li fa gars yi def man du ma def loolu xëdd tëdd yeewu ndogu man du ma def loolu c'est vrai que damay veiller ba 6 heures du matin su ma jullee ba pare si laay tëdd ba 10 heures ma yeewu nekkaat sama machine di bind wala di gëstu d'accord tey nag euh, yow buggoon naa ñu xam avant ma ñëw ci wooru gàlle dama ñëw fekk bi photo Serigne Babacar Sy yow lan nga seq ak Serigne Babacar ak Serigne Babacar Sy lan la defal. waaw pour wax si sama góor bi moom. Mm-hmm. dinaa si sawar dëgg yàlla parce que du hasard nga fekk ko fi. Mm-hmm. même boo duggee sama nekk ay photo ma nga fa. tout mm-hmm. temps damay takk chaîne boo xam ne photo mi ngi ci. wala à chaque vendredi may dem xadra di ko ziyaare ji. sëñ Babacar maak moom su may wax ci moom du jeex parce que li waxkat am na kuy wax ne sëñ Babacar li ku tax ku ko bëgg rek am na lu mu la won wala gis nga ci moom lu tax mu mu nga bëgg ko mm-hmm. man dama ko bëgg ba mu jeex ma jeex si moom takk mm-hmm. daf may daan daf ma génne ci lu bari ma ay miraakam du tey laa koy gis willaayam bi ko suñu borom may du tey laa koy gis sëñ mm-hmm. Babacar defal na ma loo xamante nii su ma ko doon wax tey fii du fi duma fi jóge dëgg yàlla. Ah, kon nag Serigne Babacar Sy defal na loo xamante ni bu loon ko fi wax fi joge te ñëpp xam na ni góoru ñëpp la. Ah. te yow rawatina yow parce que dañoo ñëw sa kër fekk fi ay photom euh, ñu fekk fi photo maam Maodo photo. Euh, ñu fekk fi ay photo Serigne Dial yu bari yu bari bari en dama lay laaj na loon dundee koor gi tam booy. waaw nekk xale nag dëgg mm. yàlla daan naa def waru gàlle mm. <laughs> man koy fàttaliku bu ma ñëwee ma ni sama yaay dama woor duggee si waañ bi fekk mm-hmm. ceeb bi foofu ma jël ko lekk continuer waar ni dama woor di deedeelu mhm. tëdd si basan yi di jooy naan koor mhm. gi dafa saf alook que maa ngi naan maa ngi lekk loolu moom maa ngi koy fàttaliku bu baax a baax te aussi kenn mësul la ci jàpp non kenn mësuma si jàpp parce que dama si daan ànd ak fulla ak fayda boo xam ne wax ma wër la ni leen dama woor <laughs> euh, d'accord kon nag euh, sama technicien moom ngi may signaler heure bi te lu lu neex lu da yow ma waxtaan ak yow xam naa ne buñ lool waxtaan dama fiy ñëwaat ñu gën a yaatal gën a waxtaan mais xam nga ni temps bi xoj nañu nga joxe sa ay kàddu yu mujj rek. waaw di rafetlu émission bi vraiment mhm. li ngeen di mhm. def yombul métier bu mhm. noble la ngeen di dugg di génne nit ñi ñuy wax ñu nit ñi di leen xam di ko rafetlu bu baax a baax di ñaar yàlla ak ci weeru koor bi yàlla gën a rafetal ànd bi seen biir yàlla ngeen yokk ba yokku amiin amiin Tiv Actu mu nekk ay tele ay rajo ñëpp di leen séentu ca kaw ca Euh, d' accord kon mbokki internet yi li moo doonoon seen émission ambiance ko gi ñu ànd ak Daouda Touré ki nga xamante ne dafa neex a dalal neex a waxtaanal vraiment euh, di jaajëfal ñëpp di jaajëfalaat waa Tivactu bu baax a baax a baax di leen wa dañuy dañuy waajal ndogu pour yóbbu ko si daara daara yi en fait ci waaye mën a jàpp rek nga jàpp ñun xeebuñu dara parce que dañuy def rek te yàlla euh, tax di wax nit ñëpp ñu ñëw jàpp si samedi la allah